seet yàlla may na la ci. Mhm. mais tey dañuy wax ak yow ci occasion ci fekk yi yëngu réew mi tey. Mhm. combat yi nga xam ne moo taxaw instant yi nii. Euh, combat lamb ji naa ne xawoon na suuf tuuti. Mhm. diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne Boy Niang suqil na lamb tey ak Gaston production gis nga nañ def keroog Strano. yaakaar naa Gaston def lu rafet. rafet bàyyi euh, euh, si yëpp yu ñëw keroog ci li nga xam ne mooy face à face bi. muy loo xam ne sénégalais ak adda yëpp ko rafetlu mhm. di wax Gaston Mbengue ñu ngi lay ñu papa nga ñu lépp nga ñu ànd fekk makan sa doom ci li nga xam ne mooy liggéey bi ngay liggéey Sénégal ci làmb mhm. mhm. ak fi nga xam ne mooy Boy Niang muy diggante Pikine ak fi nga xam ne mooy Guédiawaye yaakaar naa boobu léegi ay tali traat lu ne nga ci keroog jàkkaarloo bi adda yëpp ko seetaan tey tey lan nga ciy wax ak lan nga ciy gisagum instant yi li ma ci gis de euh, actuellement euh, Balla gay moo yor ndam li ci taxaw ci taxawaay bi nii. moment bi barke sëñ Bamba. moo téye ndam li moo téye ndam li. Eh, dama seen seen jàkkaarloo rek Balla gay door na ko ci ay jàkkaarloo xam nga du wax bi du affaire bi wax kese. ok déedéet te ku xool Balla gay xool taxawaayam euh, gis na mu daan doxee ak ni mu doxee bi yoon ñu defe na ragal la déedéet dafa am te beneen taxawaay. Balla dañ koo sangaat defaat ko beneen nit. mu taxawaat. te dégg ne aw faal waxoon na ma waxoon na ko du may faral di wax sa ca mbiru làmb waaye tey danaa wax ci kàttanu suñu borom Balla gay dina dóor dina ko daan daan bu rafet bu jeg bu bu kenn dul xaar maa ngi sóor vaar ndax man soxna aw faal du tey laa toog fii ci euh, ci écran écran jaaxaluma de <laughs> sëñ bi déedéet écran jaaxaluma Balla gay actuellement moo téye ndam li barke sëñ Tuubaa billaay walaay du ma gis ci sëriñ ay fen te après la ñu wax ne soxna Awa Fall di ngeen ñëwaat fii ne ma soxna Awa Fall la ma waxoon tey am na ci kàttanu suñ borom. wax ji doon wax moo tax na gis nga gis nga boo ñaari ko dëkk li ma la wax man nga war a xam ne kon Balla beneen Balla lay sànni tekk bi tekk bi dañ ko dañ man merci beaucoup yaa ko yaa ko yegli sa bopp te Balla Gaye incha allah rabbi di ngeen gis yeneen facettes ci moom man maa ko wax man soxna Awa Fall dafa changé changé ne dafa sanguwaat tëggaat boppam melaat beneen Balla Gaye parce que xam nga nag gis nga baala dafa yàgg nag ci ci ci làmb gi te léegi kilifa la ci ah. dama ne kilifa la ci léegi dëgg neexul te kilifa da ngay wane sa bopp nag nga xam ne yow kilifa nga waaw ku ne xam nga ne baala Gaye Balla Gaye dama dama yàgg di wax ci moom boobu laay door a génn ci site boobu maa ngi door a dénn génn ci site mhm. diggante moom ak euh, Modou Lo mhm. ba ma leen waxee ne ne di leen ko dana ko daan toog ci kawam di sinap defe naa ne ba ma ko waxee keroog bés ba ma am kenn suma ko am ci àddina <laughs> waaw déedéet sant yàlla dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax déggoo man la wax mu yegg yàlla la neex sëñ bi déggoo wax ji xanaa mhm. kay ko gëmul yàlla doo ko wax ku amul imaan doo ko wax man dama gëm suñu borom te xam ne tey ñun ñoo ko moom dañu ngi ci tey mais ëllëg yàlla ko moom li yàlla ko xam waaye li ma yàlla may nag foofu laay waxee ndax ku nekk yàlla da koo may. mais ñu gis ne Balla Gaye saa mhm. dina wuute de. dama ne la dina wuute. te sunu kanam ma nekk nekk sunu ginnaaw. xam nga booy ñaaman daf ma nekkoon xale bu ma gën a neex dafa neexoon ci làmb bi mm. à sa façon de faire daf ma neexoon waaye lamb ji nag moo ko wane du farparloo ah, mais dëgg gi dañ koy wax su non non non non non c'est pas ça non non bul ma diaboliser ak euh, non non non attends attends ñu def ndànk rek mais dama ne la dama ne la euh, non non c'est pas ne dites pas ça ne ma diabolise pas bàyyi noonu rek ma wax ak yow du noonu euh, ki nga xam ne booy ñaa la man def ma mos a neex idali laay waxal xam naa la bu baax idali <laughs> xam naa la bu baax xam naa loolu waaye dama ne la booy ñaa nekkoon na xale boo xam ne neexoon na ma trop mhm. waaye bu nu waxee ci mbiru làmb ci lañ toll mhm. ak mama fan la fan la affaire bi féete mhm. ma ne Balla Gaye ko tey actuellement barke sëñ Tuubaa moo ko téye actuellement. Hmm? Hmm? su deful deful attention tuuti ci suuf la jëm dina ko daan daan bu rafet bu mucc ayib man Fall maa la ko wax. ah après lay comprendre ci kanam la après lay comprendre dafa changé ay facettes. bala da ko humilier kii wax maanaam wax ma euh, déstabiliser bu dee ne su ma la waxee ne la seetaanu ma euh, euh, émission boobu danga naan non non. seetaanu ko mais dama wax li nga xam ne dama ko seet avant ngeen di ñëw. Balla actuellement moo téye flambeau bi. Hmm. bul sonn maa wax lii man soxna Awa bon loolu wóoru ma du ma wax lu ma wax lu ma wóorul waaye ku ne xam nga ne sarax am na fu mu jëmale doomi aadama. ku ne sarax baaxul daa fekk doo saraxe sarax ku ne xam nga ne day fànk dee te ku ne ku nekk ci làmb bi te saraxe ci suuf nga jem ku nekk ci làmb gi te saraxawoo defoo ay ñaan ci suuf nga jëm man Fall maa la ko wax waaw. ok Sa Thiès da koy dóor ci kàttanu suñu borom. da koy dóor wala da koy daan da koy daan mooy mooy li ma la wax rek da daan. ñoo ko moom ñoo ko moom. Ah! ñoo ko moom. Sa moom ak Reug Reug moom bul sonn da koy da koy da koy day daw ci kawam da koy dóor da koy daan. day dal ci kawam da koy dóor da koy duma da koy daan. du caaxaan lu leer laa la wax surtout Sa Thiès surtout Sa Sa na ñëpp def attention ci moom mbër mu doy waar maa yow ma vaar bi yow yaay ñëw maa ne bu vaar jotee na ñëpp ñëw mhm. incha allahu rabbi duma waxantu ah, ku xam soxna Awa Fall xam na bariwu ma sax ay wax ci ci sët yow yow intérêt yaa may jël si du ma woote sax naa leen kaay leen déedéet du sama jikko mm-hmm. waaye li ma la dañ mm-hmm. ci kàttanu suñ borom saa kees dina jaar ci kaw rëg-rëg teg ko ci suuf man faal maa la ko wax ci doole rek la koy la koy la koy daanee ci mm-hmm. doole moo këpp doole du benn moo këpp doole moo këpp technique man faal maa la ko wax ci kàttanu suñ borom Euh, non làmb ji bi yoon eh, li ma gis nii mooy que ne làmb day jógaat day suqalikuwaat day jéenam ma ne day jógaat xooma ci Gaston lay doon xooma mais làmb gi taxaw na fu mu war a jogaatee day jógaat nooy jogaat day jógaat day jógaat mais bu football ñëwee sa làmb